maam Ndoumbé lu xale yu góor yi di xaar <laughs> xale yu góor yi ah est-ce que yow doo leen ko laaj ne en direct ñoom ñu jàkkaaroog yow. Ah, man de tubarkalla li ma gis ci tey baa sax xeetu teint ak perruque ak bii xeetu parfum bu baax xam nga loo leen di xaar daal ci bii jongama. doy na waar de doy na waar xam nga xale yu góor yi moom des fois dañuy yoot. ah euh, est-ce que du ma njëkk ci sa caméraman bi jàkkaaroog man parce que ñoom daal ay yootkat lañ daal waaw bëgg nañu àndandoo dem place xam nga toog ñu xam nga gérer ak yow et tout waaye bu ful la jotee daal dafa mel ni man daal question boobu daal foog ma poser leen ko waaw. <laughs> man maa ko posé bu loolu